ngi Papa Dam Gueye Gueye lan moo leen indi fii tey ci armée bi waaw wax deug yalla sama frère la ñak sama xarit sama dom nday sama wëttal wa ñak na dal un proche nan la tuddu Seydou Diallo ndax mën nga ñëwaat ci condition yi ñàkkee bakkan wa condition yu metti condition yo xamanteni vraiment luñu bet ñun ñëpp ndax tay ki mu jotel ba tax li am mom mo proteja, protéger mom moko don protéger koku parce que na and ak mom demb yalla def xel mi nakari mu tenir ko ci lolu tay bu gisee sax ci mbedd mi xalé yi di ki wala ni sax da koy jaral mom musumeku sumeeku xalé yi bu gaay di dem daru ay magal ak lepp lo xamanteni ni sëñ bi woote na ci rek parce que bay fa la te yoon wi jaralon nako lu ne bu daaru wootee wala lenn loo xamante ni seen bi joxe na ko ci ndigal jàmmam jeex na tànk parewut pour war a dem du toog ci yitte rek lay dox ba ni mu ciy demee kooku ma lay wax noonu tey nga xam ni moo indi dogal lii Bécaye Seydi ki ko rey waaw Bécaye Seydi kooku nga xamante ni fu Baye Fall yi daan dem Seydou moom benn priorité dana am muy dem pexe nu mu jëlee Bécaye ànd ak moom ndax dina xam ne dina dem te boo ko accompagné wut yi muy demee amaana mooy loolu moo tax da ko daan sàmm da ko daan sàmm da doon protéger ba ni yàlla defee ñoom ñaar ñu jotee seen biir kër euh, ñu àtte leen Seydou wàcc ba ci suuf di expliquer ki ko ki leen doon àttee Bécaye taxaw ci kaw jël xeer sànni ko mu dal ko ci bopp bi waaw biñ demee hôpital tamit yóbbu nañ ko tëdd na fa ñetti fan waaw biñ defee autopsie ba pare médecin bi sax nee nañu kii moom wax dëgg yàlla day jàmbaar rek waaye lii wër woon sax def maamaanam mënoon naa bañ sax am sax 24 heures ndax vraiment ay triple fracture la am ci crâne bi waaw am hémorragie interne aussi tamit. mën nga des ci lan lañ jotee ba tax ñu jàppante ba mort di jàng. jàppante wuñ ci lenn lu am njëriñ daal parce que day faral bekkaay buy déconné des fois day agité bu bekkaay agité sëy kenn du ci wax moom dañ koy bàyyi. ñëpp dañuy maandu bàyyi ko mais Bécaye moom Seydou moom heure bu ko gisee ci condition yooyu rek moom dana fexe ba accompagner ko ànd ak moom seen kër bis boobu nag seen kër lañ toog ànd ak moom ba ci biir néegu yaayam yaayam yónni Seydou ba Seydou dem ba dikk yaa ngi dégg lii yaay booy bi nga xamante ni moo ko fekkee sax moom koy ñoom ñaar àndandoo ñëw nuyu ko nee na ma yónni Seydou Seydou dem ba dikk jox ma li ma ko yónni nee na Bécaye dóor ko Seydou ni ko li ngay def nii nak man ngay dor da daw yek ci neena Seydou tamit yek fekk ko ci kaw neena na coow li takkar se ñom ñaar jappal bayil ma yuuxu Seydou Seydou waccal Seydou waccal bayiko ko bayiko munuma ci dara Seydou tamit top ko rek neena ki am ku rombu ñukoy wo euh, bay Canal mun ko Baye kaay dimbali ma ci ñaar ñi léegi bi bay ñewé fexé ba atté len ñom ñaar daal di jël Seydou waccé bimu ko waccé di taxaw di expliquer ak mom ci la jël xair bi dóor boppam. bu fekkee day faral di jël di tox yamba li si dafa li doon instant boobu nekkul dafa naan sàngara instant boobu nekkul dafa tux. mais xame ngeen tux ak naan yu demee waaw des fois dina ko dikkal. day tux day naan. non non naan moom mosuma koo gis. mosuma teg sama bët mu tux mu tux mais dina koy faral nag moom mais. Euh, màggalu daaru bi paase sawaay sax moo ko yóbbu ba daaru moo ko yóbbu accompagner ànd ak moom ba daaru daan ni ma ko teel fii ndax ndakaaru bu fa nekkee ay for yu mbalit la fay nekkee xam nga di yàq tubay jeeg ak anam boo xam ne moom du ko neex quoi mu dem ba daaru bi muy ñibbi si moom la ni gars yi ngir yàlla teel leen ma ko fii daat fay bàyyi xaalis mais bu ngeen ko téyee ba xawl ba xam ne mënatu leen ko téye daal bëgg na ñibbi rek la gis ngeen defal ma ko 3 millions mu paas si ñibbi daal ko fay bàyyi ñibbisi mu ñëwee moom ñetti fan la ko jiitoo bekkaay xam naa ne kii na tën a gaay foofu di dox a paas mu ñibbi waaw. Seydou Midé lan nga xam ci moom. àjjana la ba ci quartier bi mu dëkk bis bi ñu nee Seydou dee na da dugg ci quartier bi xam ni fii am na lu fi metti njaareen lu maamu laay njolofeen ngir njolofeen mais bis boobu guddi googu da ngay xool xam ne fii am na lu fi metti ndax amul kër goo xamante ni nii Seydou du fa dugg amul ku muy xam wala muy jëf leen teg yow te amalu la njariñ ndax dafa nekkoon quelque koo xamante ni yàlla da ko mayoon don surtout ci matière électromécanique muy oto muy électroménager tout ça yàlla da ko ci mayoon lu ci mënti doon bu duggé sa kër nga am problème boo mënti am boo ne ko ni yalla da ko cee may il suffit que day toog benn lu ndaw lay def defar ko mu nekkoon ko xamanteni il était très sollicité par ñepp ci koñ bi bu tàngaaraan mësaa ñew lu way am di nga am ventilateur il suffit que rek na nga gis Seydou ben yoon ni ko Seydou Gayane tang na de mo van la mu la ah, waw bu ñëwee indi la mu na la indi lu jar 20000 bo né 3000 nga yor sax Seydou dina fa bàyyi ventoleur ba jël 3000 yi dem waaw loolu nekkoon na ci moom alors àdduna musu ko booleeg doomu aadama. ki rey moom ana mooy jàpp na ko. waaw ki rey waaw yoon jàpp na ko démb. démb la ko yoon di doog a jàpp. waaw démb la ko yoon di doog jàpp. dafa parce que bi affaire boobu amee moom deewul subitement affaire bi mi ngi am samedi ci guddi moom mi ngi gaañu mardi bi ci ngoon gi ay 18 vers 18 heures waaw parce que te def na jour yooyu yëpp mi ngi ko def hôpital léegi bi mu desee décédé parce que ñun xam nañ Bécaye xam nañu aussi tamit avec conscience am net mu jël Seydou def ko lu metti sax déedéet du ko def parce que xamoon na ni fi se ko Seydou féete woon xamoon na ni Seydou moom muy dox ànd ak Seydou il était protégé moom xamoon na loolu. lan ngeen di ci yoon. lu ñuy xaar ci yoon non yoon moom yàllaa ko ci boole parce que médecin bi ko doon suivre tey bi nga xamee pare na ba xamee sa waay wàcc na rapport bi mu waroon def te bi ñu ko indee lan moo ko dal lañu laaj ñu ne ko ah xaritam la jàppalante loon wérut mu dóor ko xeer moo ko indil état bi bi Seydou gaañoo aussi tamit ci rapport am loolu la ci def mort avec violence bi mu ko ci defee aussi tamit ni ñu nag vous avez l'obligation vraiment ngeen yobbu papier bi police parce que rapport bi mo leen defal c'est obligatoirement que yeen bala ngeen a jot corps bi li dafa wara dem police ñu yobbu rapport bi police bi ñu demee police aussi tamit ñu suggéré ñu ni fo ngeen dem feulé euh dante ngeen def autopsie voilà ñu dem def autopsie bi indi kayit yi bi ñu ñëwé tamit ñom ñu laaj ñu ak yépp ñu rapporté fee yi ñu né aussi tamit c'est normal que ñu xol ki nga xamanteni l'accusé mom mu ñëw top ñom ñu def sen enquête waaw bu ñu defee seen enquête daal waaw téye nañ ko daal boobu ba léegi ñu nit xamaguñ ci moom dara waaw waaw li may tëjee waa di ko ñaanal li mu dund ci àdduna yëpp ci lu metti yàlla na fi jeexee àllaaxira maal mën na doon ajanaam daal yàlla na doon noflaayam ndax àdduna li mu fi nekkee woon mooy defal jàmm ci alalam ci mën-mënam ci léppam noonu la dundee ba ni mu wàccee mosut a sonal doomu aadama Seydou moo nekk koo xamante ni mosul bëgg kenn am gene ci lenn te jotaay bu mu ñëw vraiment balaa mu faa jógee ay ree la fay bàyyi moom noonu la ko yàlla bindee quoi noonu la ko yàlla bindee di ko ñaanal nag xam nga fa mu jëm yàlla na ko gënal fuuf fii mu jógee waaw yàlla na rëccu sax lu mu fi doon yàggee quoi. man maa ngi tudd Papa Dame Gueye waaw sama sama namee sama xarit la vraiment. 啊，两个东